ها إلا لا لا إلا ها إلا لا لا لا إلا ها إلا إلا ها إلا لا -huh. إكايا علي يلا وارفع لعونك يا علي رتبته إلى حبيبك يا وعليكم ورحمة ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di wax ne bu ñu déggee jàng yooyu bu ñu ko déggee rek xel war naa daj daj dara am na loo xam ne daan nañ ko def muy gàmmu loo xam ne ñu fas yéene def ko ren ñu ngi ko jàppale le 6 mai ñu nekk nii nag di ko waxtaanee jàpp nañ ko le 6 mai ah ci ndigalul Cheikh Sidi El Hadj Mouhamadou Bassirou Ndaw hmm? di ñaan yàlla rek yàlla ñu ko yàlla fekkeloo ak jàmm. yàlla bu kenn manqué bi manqué ne yàlla rafetal lépp ñu wax ne jëm nañ ci mbiru moo xam ne mbiru màgg la moo xam ne mbiru sax si dara jëmoon ndaw fii ci mbuur ci daayira boo xam ne ñu ngi ko bee sos muy daayira sopp sex si dara jëmoon ci wàllu góor ñi président daayira baa ngi nii toog ci sama ndeyjoor sëñ Pape Cheikh Dramé Dramé Pape Cheikh Dramé ak président daam ci ki topp tofal ci kawam daam Dramé kon dañuy ubbi rek jox kàddu yi ñi def ko ni mu gën a rafetee. asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bokki jullit bokki taalib yi góor ak jigéen mag ak ndaw bu ngeen déggee sigar bu neex bu ak yuwaatit bu dal boobu ngeen xam ne lislaam xewle na ci bisim laan xewle muy gàmmoo daayira sopp Seex Sidi Alaaji Mondo bu Mbuur ñoo jàpp seen gàmmoo gi ñaan def at mu jot amaan naa lii gëj nañ koy def ndax feebu fi jaaroon waaye bon jàpp nañ ko rek le 6 mai ci ndigalal al xalifa Mouhamadul Bachir ak mboolem mi rakkam ak mboolem hadratu Daaru Salaam ya bon ñoo leen yëgal ñun waa daayira Mbuur suñu gàmmoo gi ñu daan def at mu nekk ñu ko daan def fii ci Mbuur bon jàpp nañ ko le 6 mai incha allahu ndem sob na yàlla gàmmu gi nag ki nga xam ne moo koy dem mooy alaaji muxtaar ndaw ki nga xam ne moo war a doxal guddi gi bëggal bokki taalibe yi bokki julli yëpp mooy sëriñ daam yuwaa xit heure bu yëkkate yuwaa xit xool yi sedd xool yi sedd guy lool mais ni koo xam ne ku jàmbaar la ci waa xit ko tëgg tëggin wér yu sëñ bi bindee kii toog muy porte parole daayir bi de sëriñ Bala Dramé mu ngi toog ak sëriñ Tahiru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 mbokki jullit yi mbokki taalib yi ñoo ngi leen di nuyu ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullah comme ni ko kilifa euh, yu tedd yi waxee ñi fi njëkk a jaar euh, dafa am benn xew-xew boo xam ne daan nañ ko amal at mu jot fii ci dëkk bi incha allah ci ren nag ñu ngi ko jàpp ci ndigalul xalifa Mouhamadul Basir yàlla na fi yàgg loolu taxam jàmm ak mboolem ay rakib ak euh, Seydi Habib ci ci njiital Serigne Pape Cheikh Dramé ak mbay Dramé ñoo leen di yëgal gàmmoo giñ nan def an mu jot fi ci Mbour ren nak japp nañ ko le 6 mai le 6 mai buñ ko retee ba paré ci taxawayu alaaji Muxtaar Ndaw bis bi nak buñ xëyee bëgg nañ fay jàng alquran buñ alquran ba nopi xat mu ko jublu ci euh, togg añ yéeg yoy noonu ya ca aju ba ngoon ñu doog dem ci Euh, wàllu baas beeg yooyu noonu ñu demee ci wàllu baas ba ay 22 heures 23 heures ci la ñuy commencé programme bi programme bi nag bu ñu demee bu guddi gi xaw a xaaj dañ jox sëñ daam yu waaxit avant sëñ daam yu waaxit di ñëw dana am yeneen jàngkat yu fa jaar nag yu demee ni ñoom sëñ Tahir Ndiaye ñoom Abdou Sakho yin ak ñoom Nasir yuñ Sakho incha allah bu ñu paree ñu dox ma daam yu waaxit ñu paree sëriñ bi doog ñëw commencé gàmmu bi bis bi nag. ren ñu ngi ko tuddee muqadam bu mag bi nga xam ne ku nekk xam na ko ci sëñ kër sëñ Omar Ndaw ñu koy wax Serigne Wuri Touré Serigne Wuri Touré moom bu ñu ko waxee rek ku nekk xam na ko moom lañ tuddee bis bi ren incha allah bis bi ñu ngi ciy woo Serigne Mod Dramé Guy Murit ñu ngi ciy woo seriñ Hassan Dramé ñu ngi ci woo Serigne Ousmane Dramé ñu ngi ci woo Serigne Ibrahima Dramé ñoo ngi ciy woo Serigne Ibrahima Guèye ñoo ngi ci woo Imam Tall. ñoo ngi ciy woo sëñ Mbay Touré ñoo ngi ciy woo sëriñ Mohamed Diouf ak mboolem wala maa yi nga xam ne ñoo nekk biir Mbuur ah, ñoo ngi leen di woo ci bis bi ñoo ngi ci woo monsieur le maire Cheikh Issa Sall ñoo ngi ci woo monsieur le maire Ousmane Gueye bu Sali ñoo ngi ci woo monsieur le maire Malicounda Maguette Sène ñoo ngi ci woo mboolem responsable bu nekk biir Mbuur ak lu ko wër ñoo ngi leen ci woo ci bis bi di sàkku seen teewaay ci bis bi ñoo ngi ci woo mbooleem jàngalekat alquran yi nga xam ne ñoo nekk ci biir mbuur ci yor ay daara ñoo ngi ci woo waa jamaatu ahlul quran wa sunna ci njiital sëriñ Ousmane Dramé Diallo mbay ñoo ngi ci woo waa daayira rawati rawatina waa daayira ahlu badar bu nga xam ne moo nekk Dakar ak waa daayira muxtaaroon yi nga xamni mom itam Dakar la nek wa ahlu mahabbati ak wa daayiratu ansarullahi ak mbooleem talibé sa ñoom Ndaw yi nga xamni ñoo nek ci biir mbour wala ñu nek ci lu wër mbuur wala ñu fuñ mëna nek ci aduna bi rek ñu ngi leen di yëgal sunu gàmmoo gi ak mboolem kep koy wax ashadu an laa ilaha illallah wa la sharika lah ñoo ngi lay yegal ci suñu gamo gi incha allah jàpp nañ ko ren le 6 mai di ci wo mbokki julit yëpp ak mbokki talibé yëpp ñoo ngi jégalu bu baaxa baax kaddu gi nga xamni ñoo ngi doon koy yëgati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 la ilaha illa la ha illa la la ilaha illa la